Euh, maa ngi jéggalu jullit yi jullitu àddina ku ma ci mës a taseel nga woon ma gannaaw ma sànni la bët maa ngi la koy jéggalu waxuma ma wax la waxuma ma def la waaye ma sànni la bët xalaat ci sama xol maa ngi koy jéggalu ndax loola ba jëf jëlaate ñaaw walla muy bon xalaat baa ko yées ndax moo ko fondement kon maa ngi jéggalu ñëpp di waat ci yàlla ci seen kanam ni yéenewuma kenn lu bon kenn ci àddina gisuma lu kenn am ba ma def ci sama xel ndax xam naa ni bu ci sama cër nekkee kiy séddale dana ma jox waaye ña ñi lay jox te laajuloo leen nga gërëm leen sant leen ñaanal leen yàlla ñu yokk yokku te yokkule yàlla sàmm leen mbokk yi man de maa ngi leen di jéggalu ngir jëmm yàlla maa ngi leen di jéggalu yàlla def ko seede suñu borom tabaraka wa taala wallahi dama xaw a tëye nag ci ñi kooku mënuloo ko baare man nga ne bu fi kenn wax kenn ñëpp ne selaw waaye xel kenn mënu ko téye xel ngi wax maa ngi jégalu ñëpp maa ngi jégalu ñëpp maa ngi jégalu ñëpp li ma digaa léegi yàlla yit maa ngi ko koy jégalu di ko ñaan ci yërmandeem mu bañ ma topp dara boole leen ci yéen itam ah, ñu ñaan nag ñaan waxuñu santaane waaye ñaan